adam a un particulier avec les professionnels si vous voulez le professionnalisme le confort la qualité et la sécurité venez voir notre agence immobilière prévision immo Wow, cette entreprise est gérée par un jeune travailleur engagé et déterminé au nom de Abib l'homme fort l'agence prévision immo est focalisée sur deux domaines à savoir la transaction immobilière et la promotion immobilière pour la transaction immobilière il y a la location la vente et l'achat concernant la promotion immobilière l'entreprise sera le maître d'ouvrage c'est-à-dire le réalisateur du projet risque yëpp moo koy jël xam ngeen ni loolu neex na kon ku bëgg a jokkoo ak ñun defal 33 927 43 07 wala nga def 77 890 30 avec l'entreprise prévision immo votre bien au juste prix ngir comme li may wax libérer Saloum Saloum ñu nangooti ku ñuy joxañal ku ñuy àndal waaye ñu ñoo ko àndal parti bu nekk nag yaa moom sa bopp yaa moom sa ndaw waaye fii Saloum balaa nga ñuy joxañal ñu joxoñ la te ñoo joxoñ suñu bopp duñu joxoñ keneen di wax ne incha allah li ma gëm mooy liggéey bi day door may informé ak coordonnateur communaux di wax sëñ Madi Cissé incha allah financement jigéenu Medina Salaam nañ jàpp ne balaa weer dee di si jox ci kàttanu yàlla jigéenu commune yëpp ko continuer baral tamit sëriñ bi dafay kàccoor. xam naa. Ah! sëñ bi xam naa docteur. xam naa aussi dina laaj wàllu jamu waaye wàllu jamu gaajo tamit mi ngi fi nañ jàpp ne commune département bi yëpp ak bi sànq maa ngi dégg Moussa bu Dibkilaan. mu moom tamit muy wax bosam mais nañ jàpp ne en tout cas xanaa mu bañ a nekk si bo poosu Baye Cheikh mais Baye lu nekk ci poosam rek yéen a ko mu fanaan loolu moom dama bëgg mu leer donc maa ngi leen ni santi di leen sant di sant bu amul benn àpp di leen wax ne jaral ngeen ma suma bakkan du ma leen mës a wor du ma mës a def lu leen tuuteel du ma mës a leen xeebeel fépp may dem damay xamné Salum la amna fuma deuk warne len naw warna fa am jikko ju rafet bu warna aussi wa commission communication ñom tamit def nek sen à ak sen président commission des cellules des femmes Ulisek les sages ak Amadou Kulim Djoum may remercier aussi les alliés le SG moom mention spéciale les alliés aussi parce que am na ñoo am ne dañoo bëgg Baye Cheikh Baye Cheikh bëgg leen te bokkuñ parti mun naa ci wax Adja Ndeye Lo mun naa ci tudd xëy na Ba Mbour mais nañ jàpp lii ñu Baye Cheikh lii ñu Baye Cheikh lii ñu Kaffrine la ñëpp xaj nañ ci maa ngi gërëm aussi waa PDS mën na ñëw ñu def leen say comme ni ma ko diglee woon 5 juin ñu def ko ñu mëtalaan say ba mu dëgër say boobu bu ñu ko mëtalee ba dëgër duñ ko dóor lépp lu ñu soxla ci Saloum duñ ko def wala nga abal te loolu laa bëgg loolu mooy am. donc je lance encore un appel solennel à toutes ces composantes yu gis ne bokk neen gis-gis ci Kaffrine ñu gis ne wan neen ànd ci Kaffrine ñu gis ne ñoo bokk yéene ñoo bokk bëgg ci Kaffrine ñu ñëw tamit Baye Cheikh talal na leen loxo pour ñu ànd ndax nag.